lii yàlla di may ñii may na leen ko ba may leen lu raw loolu may na leen ko ba may leen lu raw loolu waaye fii ñi fi nekk di dox di génn dañuy nokki di tiim tiim asamaan di dox ci suuf yow boo yewoo dangay ngay nokki di tiim asamaan di dox ci suuf donc kenn boo benn yàlla ji moo nekk fii moo nekk foofu kon gëm leen seen bopp ngeen choisir nit yu baax ngeen choisir nit yu bëgg réew mi ngeen choisir nit koo xam ni bu ñëwee nit yu bëgg réew mi lay jël parce que président ngeen choisir benn nit tey jii baadoole yii di puub seen kaw ak di leen jaay doole yëpp kan moo leen fii indi ku tax ñu xam leen kan moo tax ñu xam leen est-ce que en 2012 kenn ci yéen xamoon na maa xam jàlloo kenn ci yéen malgré mi ngi newoon ci àll bi di fen di sàcc. mais en mille 2012 non en 2010 2011 ba 2012 kan ci yéen moo xamoon Maham Diallo kenn kon tey lu Maham Diallo def rek Macky Sall moo leen moo ko defloo mu def leen ko donc pourtant Macky li ngeen fal mais baadoola ay moroomu baadoola lay àndal baadoola moroomu baadoola lay àndal te baadool xamul njoowaan en 2012 kan ci yéen moo xamoon Basirou Gueye kan ci yéen moo xamoon Bassirou Gueye kenn xamuloon Bassirou Gueye en 2012 kenn xamul Antoine ñàkk jom en 2012 kenn xamul woon ci yéen kan mooy Antoine ñàkk jom tey lu leen deful amul te tey bu leen yabee bukki bu yabee gaynde ca doxeen bala Antoine ñàkk jom bu leen yabee ma Hamadi Diouf bu leen yabee Bassirou Gueye bu leen yabee Maham Diallo bu leen yabee ba di leen toroxal jàpp papa jàmbur di dóor ay mandat de dépôt di leen tëj ci kaso yi kooku yëpp Macky Sall la Macky Sall la en 2012 est-ce que Maham Diallo mënoon na leen jàppee nii di leen tëj ci kaso yi di leen fenal la ko sosal en 2012 est-ce que Bassirou Gueye amoon na force bi donc baadoola buy ñëw day indaale fu nekk nii mënu leen xam ñu nekk ci ginnaaw de tey boo leen fi tegoon euh, euh, ki nga xam ne moom mooy. Euh, Amadou Ba mais Amadou Ba am na ñeneen Amadou Ba am na équipe bu boppam yu toogul de Amadou Ba ci ginnaaw nit la nekk dañ koo indi mais gis nga bës bu bu ñu sàgganee caaxaan sànku lank lonku torox tortu ba juum ba bàyyi ñoom ñu def luñ bëgg a def ba teg fi Amadou Ba bu boobaa nag moom day indi équipe am moom tamit am na yeneen booy yu yàgg xeex ndax moom yoo xam ne amuñu place parce que du équipe am faloo guñ bu équipe am faloo tam day indi ay nitam di dispositif am bu boobaa falu na ak lu Macky Sall mën mën mën dootu ko mën a tële dara parce que mooy président bu boobaa Macky Sall mën na wax sax mën na ko dul fessee taxawel ne moo day indi moom tam ay nitam nitam yooyu indi ay nitam affaire bi chaîne la Sénégal loolu la Sénégal break moo fi amagul. ab baadoo la ngay fal mu dem indi gelam indi cagaam indi jabaram indi ñaareelam indi ay suqam indi ay coggam indi ay markatu taatam ñooñu ñëpp dañuy ñëw parce que sénégalais bu ne bu yeewoo bëgg na ñu ñu tagal ko maamam sauf man sénégalais bu ne bu yeewoo bëgg na ñu ko maamam sauf man bëgguma ko tagal sama maam parce que loolu saaga ndey la mu mu dund ba dey nii damay taggal sama maam sama maam bu dee ba ñu sax yi lekk ko ba yax desetu nga nga nga ma koy taggal quoi ça montre que man defuma fi dara moo fi defoon lu war a tax man ngay tagg man man ngay wax man yow yaay def lii yow yaay sa jaloore lii nga may taggal koo xam ni dee na 1832 1700 wala 1600 un sax yi lekk nañ ko boo demoon ci bàmmeelam dafa fekk tus kooku fu ni mi ngi xool nu muy lijjantee yàlla lu nga may taggal kooku man man moom bëgguma ko ma taggal sama maam loolu danga may saako ku ma taggal sama maam ma noq la parce que comme si man sama dund amul benn njëriñ def ma dara ci kaw suuf ba nga may taggal ñoo xam ni ñoom ñoo fi def loo xam ni bàyyi nañ ko fi mais man mi nekk fii sax mënumaa def dara wala balaa ñu laa tagg da ngay dee mais sénégalais bu nekk bugg nga toog ci pouvoir indi say nit ñoom tam ñu toog di warax di lekk di teg di <laughs> bu boobaa nag deux dames ngeen di am deux premières dames ngeen di am dégg naa maa ngi maa ngi koy wax na mu profité sax wax ko Amadou Ba Amadou Mamita Kane danga koo takk ci farataak sunna su Muhammad dangaa dem ba Mauritanie takk ko fa baayam ak yaayam toog ñu may ko mu doon sa ñaareel lan moo tax nga koy nëbbu sénégalais yi lan moo tax ngay nëbbu sénégalais yi bëgg ñu gëmloo Aïssata Biliba la guinéenne cent pour cent de père et de mère nga bugg ñoo gëmloo ay Aïssata Biliba Amadou gis nga ragalal yàlla ak lu mun a am dellool sa xel ci yàlla yàlla mooy joxe pouvoir ñaari jabar nga am amoo benn jabar kese tollale leen tollale leen mamita kan sa jabar la mooy sa ñaareel am ngeen seex góor ak jigéen du jumelle góor ak jigéen mamita kan am ngeen seex góor ak jigéen muy sa ñaareel nga temoon ba Mauritanie takk ji ko fa indi ko Aïssata Biliba nga takkee ko Thiès mu jógee gine donc il faut assumé loolu rek mun na tax sénégalais yi weddi la parce que dañ naan kii daf ñoo fen bàyyi leen xale yi ngeen di takk di di jiital kii di nëbb kële di ci def yooyu rafetul day tas kër boo leen munul nekk ay polygame ngeen bàyyi ko bu kenn forcé wu leen ko bànneexu bakkan war tax ngeen takk kii toroxal kee wàcce kee jël kii yëkkati kii wala ngeen non ñaari soxna nga am jubóowuñ nag on le sait jubóowuñu Aïssata Bili Ba dafay bëgg nekk au devant di fay ay di fay di di fay snapper yi di bugg a wane boppam ak yëkkati boppam ak yi naan parce que moo am foofu ay doom yu mag mais eh, mamita kan sa jabar la ka takk ko ci farata ak sunna su Muhammad am na ñuy sax danaan ay takk suuf la takk du non du takk suuf parce que euh, lu ma mbokk bi wax am na lu leen metti nag mais mbokkam yi moo di que ay Aïssata euh, Mamita Kane Amadou Ba takku ko takku suuf man leen mais <laughs> takku suuf parce que euh, ay Bili Ba yóbbu ko mu ne ma non lan mooy takku suuf ma ne ko man ma ñuy nëbb mu ne ma non lool du takku suuf takku suuf mooy bu fekkee ni nit ki da ngaa takk ay mbokkam sax yóbbuñu ko. jigéen bi ñëw ñu dem wuti ay ay ay ay ay ay euh, ay ñu takk ko te ay mbokkam sax yoguñu ko yooyu mooy takk suuf mais Amadou takkul Mamita Kane takk suuf daa dem ba Mauritanie toog joxe guro waxtaan fa ñu may ko jabar donc loolu du takk suuf ay papaam papay euh, euh, Mamita mi ngi fa toog yaayam mi ngi fa toog loolu du takk suuf ma ne ah kon de bu dee loolu la kon loolu du takk suuf damaa foog ne woon takk suuf mooy nga nga am premier jabar jaar ci suuf nëbbatu takk beneen jabar donc loolu kooku takk suuf la mun ñu ne ma non loolu du takk suuf. takk suuf mooy bu fekkee ne yow da nga da nga dem takkanteeg jigéen ba te ay mbokkam sax yëguñu ko. am <laughs> loolu boo day fekk jigéen jooju lamb wala amul mbokk wala mu nag orpheline xëy na parce que man mënuma comprendre nan la ab jigéen mun a toogee di nëbbutu say mbokk nëbbutu sa baay nëbbutu sa yaay nëbbutu ñëpp. mënuma comprendre voilà donc ça man maay wax man je ne suis pas parti Sonko lu mu wax dafa leer naññ daf ne yéen pastefiens yi yéen waa parti pastef yaa ngi dégg ngeen bañ a wax ci ñooñu man bokkuma pastef man bokkuma pastef Sonko ne me contrôle pas Sonko ne ne détient pas ma bouche du Sonko moo mooy wax lu may wax ak lu ma dul wax j'ai existe avant Sonko di def ay live di xeex avant Sonko di rap avant Sonko di casse avant Sonko dama gis muy subir injustice ma jàppale ko nekk ci je ne suis pas un fils de Sonko ni un partisan de Sonko